voilà salaamaaleykum mbokk internet 24actu ñu ngi leen di nuyu di leen dalal laaj ci seen émission bi nga xamante ni yéen a ko taamu seen bopp mu di seen entretien kenn dootu leen ko présenté di ci mim réew di kontaan nag bu baax a baax ci wóolu bi nga xamante ni wóolu ngeen ko chaîne chaîne bu mag bii di 24actu euh, saa su nekk ay kàngam la ñuy àndal suñuy émission tey nag ñu dalal Seydina Ousmane Diop Seydina Ousmane Diop nekk responsable politique RDR ko rek mu daal di nuyoo mbokku internet yi naa la waaw maa ngi lay fay soxna Maguette asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Sénégal waa vingt 24 actu ñu ngi leen di nuyu maa ngi lay ziare bu baax soxna Maguette di bég lool ci invitation bi ngeen ñu defal tey ngir ñu mën a waxtaanee réew mi di sant bu baax tax xam na ni seen chaîne bi chaîne bu suivi la chaîne bu am solo la donc lii mbégte la ci ñun euh, ci ñu ñëw fi teew fi di tàmbalee suñu kàddu nag euh, nuyu di ziare sëñ Mountakha Bachir yàlla na yàlla may ko gudd fan ak wér. di nuyu di ziare sëriñ sëriñ sëriñ Cheikh Fall di ko ñaanal gudd fan ak wér. amiin amiin merci beaucoup Seydina Ousmane dalal la jàmm bëggoon nañoo xam nag kan mooy Seydina Ousmane Diop ak parcours am yëpp. waaw soxna Maguette Seydina Ousmane Diop responsable politique LDR yeesal bu président Modou Diagne Fada ñu koy nuyu di ko ziare lu bëri de passage euh, ñun nag dañu yàgg ci politique bi fii ci Touba ndax depuis le parti démocratique sénégalais. Euh, la ñu doon suivre le président Modou Diagne Fada si lañ doon ànd ak euh, président Abdoulaye wadd depuis bi mu nekkee opposition di ñafe di liggéey ba karoog euh, parti démocratique sénégalais di yore nguur gi ba karoog muy mu koy ñàkk ba karoog président Modou Diagne Fada di créer parti bi naan LDR Yeesal ñu ànd ci nag moom définitivement soobu soobu ci liggéeyu fexe ñu nit ba li nga xam ne mooy suñu objectif ci réew mi ñu mën koo atteindre. kon boobee ba léegi mën nañoo jàpp ne Fada nga nekkal. waaw booboog léegi parti démocratique Sénégal lañ nekkoon mais di suivre président Fada ndax cofeel gu ñu amoon ci moom ba keroog euh, muy demee ni mu ni mu demee ba mu créé parti ñu dem nag soobu ànd ji ak moom ci ci ci liggéey bi. d'accord am na solo dégg nañ tamit ci wéewu ba ñu ne yaa ngi liggéey fële ca hôpital Matlaboul Fawzeyni ñu bëggoon xam yan fonction nga fa occupé. waaw soxna Maguette ñun nag yàlla dogal na suñu formation euh, cadre de gestion des établissements de santé la yàlla dogal aussi ñuy liggéey fii ci Touba bi ñu dëkk ñu koy sant yàlla bu baax Euh, nekk fa ci administration hôpital Matlaboul Fawzeyni di occupé poste bu naan chef de la division des finances. d'accord am na solo comme ni ma ko waxee sànq rek yaa ngi nekk ki nga xamante ni moo di ah, Mamadou Diagne Fada te gis nañ Mamadou Diagne Fada nekkoon na fi responsable des jeunes de l'IGTL au PDS nekkoon fi tamit ministre de la santé ñu bëggoon a xam jamono ji muy nekk loolu naka la daan doxee moom Mamadou Diagne Fada. waaw loolu soxna Maguette dañ kontaan lool ci tontu ci ndax euh, suñu président Mamadou Diagne Fada dañ ko yàgg suivre. depuis muy nekk PDS di nekk UJTL nekkoon na nit ku yaatu nit ku xam politique nit ku am vision nit ku mën a dajale nit ku mën nit ku fonk nitam donc loolu ñu yàgg ko gis ci moom depuis UJTL c'est vrai que unanimité bi UJTL amoon bi mu koy bi mu ko yore dem ba yore dem ba bokk ci li nga xam ne mooy libéralisme africain bi dem na ba pays Afrique yi mu bokkoon ci bureau bi yoon ci poste yu am solo demoon ba jiite sax euh, la jeunesse euh, libérale bu bu bu sous région bi donc kooku euh, xam-xamam ak capacité am ak compétence am moo ko yóbbuwoon foofu donc UJTL liggéey na fa liggéey boo xam ne dootul dañ li nga xam ne aussi mooy ministère de la santé bi ñu ko ko dénkee macha allah liggéey na fa liggéey bu am solo. yóbbu na structure de euh, santé yóbbu na hôpitaux yi si standing bu bu am solo bàyyi na fa tâche yoo xam ne aussi wax dëgg yàlla ba keroog ñuy perte pouvoir moo ko yore mais li mu fa liggéeyoon ba léegi tamit moom moom mi ngi fii muy liggéey bu am solo boo xam ne yàgg nañ ko suivre yàgg ko rafetlu. d'accord euh, am na solo ci leeral gi mais gis nañu tamit ki nga xamante ni moo di Mamadou Diagne Fada mu nekkoon ci ñu bokkoon ci ñu créé woon euh, PDS euh, jamonoy Abdoulaye Wade ñu gis ne ba tey nag PDS mi ngi existé mais dafa dafa génn dem taxawalaat beneen kuréel boo xamante ni moom moo ko jiite tuddee ko EDR Yeesal lu waral lu ni mel. waaw loolu nag soxna Maguette c'est une c'est une longue histoire qui est très aussi léegi léeg day baax ñu di ko leeral ci. ci ci ci ci politique gu Sénégal ndaxte ku ne xam na ni président Ablaye wadd ñu du ko ñaan gudd fan ak wér moom it suñu mentor boobu euh, mooy yar suñu président Modou Diagne Fada président Modou lu nekk dañ na ko ci parti démocratique sénégalais euh, léeg-léeg ñu toog réunion sax mu koy wax euh, dugg na ci kaso am na ci ay damm-damm lu nekk daj na ko ci xeexu président Ablaye Wade ndax gëm vision président lay Wade ñu ànd uti opposition euh, mu mu ménagewul benn effort mu def lim am yëpp kàttanam yëpp ba président Abdoulaye Wade jël réew mi bi mu ko jëlee aussi mu cëral ko en si en fonction de li nga xam ni moom la fournir ak li nga xam ni mooy mooy yelleefam ci liggéey bi ndax xam na ni réew boo koy jot bëri na looy daj bokk na ci ñi daj lu coono yooyu ba mu jot ko président Abdoulaye Wade delloo ko njukkal jox ko aussi cër yoo xam ni xam na ni mën na ko yore muy euh, ministère de la jeunesse ministère de l' environnement vraiment ministère de la santé yooyu yëpp bi mu koy jox dafa xam ni yàlloo na ko mu jox ko léegi bi mu ko jëlee nag ñu dem ba benn instant xam nga àdduna euh, léeg-léeg moo waral déjà suñu slogan bi yeesal da ngay toll foo xam ni il faut nga yeesalaat. même sa kër di nga dem ba ay yenn at nga ni naa peinturaat naa defaraat defe naa exemple may joxe même sa sa dundukaay di nga sa dund di nga dem sa nga taxaw ni xaaral ma xool nag nan laa war a doxewal est-ce que waruma yeesal lii parce que en fonction de ni àdduna di évoluer yow tamit war nga mën a jël say disposition pour évoluer évoluer boobu yeesal lañ ko mën a tuddee loolu moo waraloon bi nga xam ni euh, parti démocratique sénégalais dem nañ ba toll si yenn jafe yi le président Mour Diagne Fada ñëw taxaw jël ay responsabilités à deux mains taxaw devant le président Abdoulaye Wade loolu ñëpp a ngi koy fàttaliku devant tous les responsables du parti démocratique sénégalais ni man je propose que ñu def ay réformes au sein parti réformer texte yi réformer ni ñuy doxee xoolaat nan la ñuy def ba gën a nekk ci jamono ba mën a ba mën a conserver li nga xam ni cofeel bi sénégalais am si ñun ak mën a sauvegarde aussi suñu président Abdoulaye Wade ak mën a dem aussi à la euh, conquête du pouvoir mën ko yore anam yu dëppoo ak jamono. loolu nag xam nga am na ñoo xam ne tamit dañoo xaw a allergie changement mu juróon ci biir PDS ay coow yu bari yéen a koy fàttaliku ñu bëri ci kàngami PDS yi euh, tudda ko koo xam ni dafa bëgg a mu indi ay jafe-jafe jaxase ko ak papam président Ablaye Wade mu indi woon ay jafe au temps ba mu xam ni léegi nag bañ ni dañ koy dàq dañ koy dàq PDS mu xam ni fi mu toll nii li mu indi muy yeesal muy loo xam ne lu baax la ci parti bi gëm na ko ñu bëri ñu àndoon nekkoon ci PDS te nekkoon ci ginnaawam gëm ko ñu xam ne nar na indi jafe-jafe si si si PDS parce que boobu yàq nañ xelu président Abdoulaye Wade donc mu jël responsabilité ak courage am à deux mains ni kon léegi moom dafay dem ber langu politiku boppam mais tout en étant libéral tout en épousant les les les les, les idées ak la philosophie du président. mais ak li ko ak li ko Abdoulaye lépp wax nga ko sànq est-ce rafet na pour que moom mu jékki-jékki rek ne day créer beneen parti yeesal. non waxul jékki-jékkiwul parti démocratique Sénégal ñoo ko dàq jaxase ko ak ak ak ak le président Abdoulaye Wade indil ko ay jafe-jafe ba mu xam ni mënatu fa évoluer lu nekk def na ko ah nekkul loo xam ne dafa tëb benn jour nit ni dafay kii def na lépp de son possible pour toog si famille am ci këram ci wetu papaam ci ay frères ci wetu ay sœurs am malheureusement. Euh, ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci wetu président Abdoulaye Wade ak ñi nga xam ni ñoo yoroon kuréel yi xeex bi metti lool ba mu xam ni euh, fii pour mu évoluer fi dina jafe li mu bëgg pour mu am ko fi dina jafe mais am na gëm-gëm am na vision am na objectif am na ñu mu àndal ñu ni kon pourquoi pas ñu ànd ñun tamit suñu gëm-gëm boobu suñu vision boobu ñu doxal ko si si si si loo nga xam ni moom ne mooy nekk benn euh, nouveau parti politique. d'accord léegi LDR Yeesal moom lan la wund. LDR les démocrates réformateurs LDR les démocrates réformateurs donc c'est pour indiwaat suñu ancrage si idée libéralisme idée démocratique boobu nga xam ni moom lañ njàng moom lañ nàmp si président Abdoulaye Wade moom lañ nàmp si si PDS donc les démocrates réformateurs yi nga xam ni léegi dañuy yeesal on va faire la politique autrement politique autrement mooy euh, sooy suivre bu baax la président Modou Diagne Fada ay discours ay waxtaanam mooy nañu ànd àndu nawle àndu gor dañu am projet de société suñu projet de société mi ngi nii yow soxna màgget ñun Sénégal lii lañ gisee mbay mi nii lañ gisee njàng mi nii lañ gisee santé bi nii lañ gisee économie bi nii lañ gisee kaaraange nii lañ gise euh, lan moo ci sa xalaat boo xoolee mu doy la nga ñëw ànd ak ñun ci loolu ñu dem uti. baatu baatu réew yi bis bu ñu amee baatu réew mi ba ba jël réew mi ñu doxale noonu. d'accord am na solo ñu gis ne tamit bi ñu ko créé ak léegi yan acte majeur ci réew mi moom RDR waaw c'est vrai xam nga nag. Euh, acte bala nga koo posé da nga yore jumtukaay yi donc ça veut dire quoi ça veut dire que balaa ngay euh, def ci santé dara da nga yore ministère de la santé bala ngay def ci euh, économie dara extra extra ça veut dire que euh, mais fi nga xam ne moom lañ toll mooy outil pouvoir donc acte yi ñuy pose actuellement mooy élargir suñuy base waxtaan ak nit ñi gëmal leen suñu projet de société gëmal leen suñu suñu suñu suñu suñu programme parce que programme boo xam ne bi ñuy nekk ci jafe-jafe yooyu ñu ngi doon tëju ñun cadre yi di waxtaan di tënk société bi donc am nañ un bon projet de société am nañ programme baax boo xam ni moom lañ soumettre sénégalais bi ñu demee campagne législative yi moom lañ soumettre mais est-ce que tamit du ngeen def benn acte pour population bi tamit mën a xam lan lan ngeen fas yéene def waaw bien sûr acte bi mooy euh, acte bi fi nga xam ne si lañ toll li ñu toll mooy Euh, suñu nit yi ak euh, suñu suñu gisee loo xam ni dina jëmale réew mi kanam yan taxawaay lañ ci am suñu gisee loo xam ni day yàq yan taxawaay lañ ci am yooyu mooy act yoo xam ni mën mën nañ ko def parce que yoruñu jumtukaay yu ñu yu ñu changé yu ñu yu ñu réformé yu ñu yeesalee mais quand même dinañ wax dinañ alerte dinañ dinañ jëf te biñ demee ba nga xam ne aussi euh, ànd ak le président Macky Sall jot na anam yu ñu ko defee leer na nañ ba mën a poser acte yoo xam ni vraiment fi ñu toll nii mooy jëmale réew mi kanam. d'accord ci loolu sax ci lay daal di ñoo ndax gis ne tey jii yéen a nekk directeur général bu Sonacos ñu gis ne njiitum réewum Sénégal jox na leen ko dafa bëgg ngeen topp si ginnaaw waaw wala déet lu mu fa demee noonu. waaw foofu foofu soxna Maguette dinaa dinaa kontaan lool ci ci ci indi fi leeral. parce que léegi sax ma dégg ci réseaux sociaux yi ñu naan ay ñi nga xam ni dañoo transhumé ak yenn yenn wax yi mais foofu day baax ñu ni fa leeral. ndax le président Macky Sall yàlla dogal na bi muy recevoir président Modou Diagne Fada bokkoon naa ñi demoon toog salle des banques waxtaanoo fekke naa ko maa ngi rappelé wu bu baax bi président Macky Sall naan man de sama frair bi Modou damaa jaaxaloon bi ma faloo daal te muy sama frère ma xam capa xam compétence am ku ne yónni naa ko ci moom mu lànk rek di ñëw man demoon naa ba yaakaar ni sax dootul ñëw ci man bon mu nekk lu xawoon na. mais est-ce que bëggul ngeen nekk si wetam rek boo tax mu leen koy neexalee pour ngeen nekk directeur Sonacos. dama lay leeral parce que loolu dafa am solo ñu indi historique bi parce que bi président muy Diagne Fada di tontu li mu tontu moo waral tey lii dafa ni ko man dañuy dem outil élection nga am langue am projet de société am am programme ma am langue am projet de société am programme ànd ak sama programme defaan ko di ko di di ko défendre di ci liggéey yàlla dogal nga gañe yaa ngi ñi nga àndaloon. ñi la doon jàppale ñi nga ñi nga bokkoon benn gëm-gëm ba yore réew mi boo yónnee ci man te yaa xayti man ma doon xeex sa programme boobu su ma ñëwee si yow day am lu ma nuru donc dama lay bàyyi nga gouverner ak ñi nga àndaloon uti wax ak sénégalais ban d'accord sa projet société ñi nga àndaloon bu uti ba ba gañe yéen a bokk vision yéen a bokk tabax loolu dama leen di bàyyi du ñëw ci loolu loolu transhumance la loolu mooy transhumance no defu ko malheureusement defu ko xam nga tax defu ko dafa da bàyyi ñu gouverner ba seen gouvernance jeex ba ñu war a dem utiwaat xam nga si si on parle programme boobu mi ngi mi ngi développé woon ce qu'on appelle le PAP 1 hmm? PAP 1 la développé si kii am léegi deuxième bi muy ut nag euh, deuxième mandat si la si la si la si la si la si propose si le PAP 2 boobu da ko président moo daan fàttali ko léegi man dama projet société nga am projet société on va faire une convergence programmatique da indi sa programme ma indi sama programme ñu xool fi ñu dëppoo ak li nga xam ne moo ko Euh, je me rappelle euh, gouvernement bi à son temps le le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne invité nañu ñun kàngami parti bi ñu demoon ci ay lieux yu bëri di waxtaane le PAP 2 mm, président Macky Sall ni lii la proposé Sénégalais Elder Yeesal ni lii la proposé Sénégal ñu daje nañ ci ay ay yoon yoon di waxtaan ba am un programme commun loolu naan convergence programmatique bi ko amee ñu dem toog ak président Macky Sall ni ko lii bu ñu ko defee ñun dinañ nangu ànd ak yow uti. parce que boobu mi ngi si fin de mi ngi si fin mi ngi si fin de règne premier mandat jeex uti. léegi nag su ñu àndee outil lii ñu àndandoo proposé ko Sénégalais yi dépendre ko bu ñu falee su boobaa ñun nu sommes comptables su boobaa nag boo ñu joxee poste dañuy liggéey. ah mooy li ma wax rek pour ngeen dégg su wetam dafa ñëw si si si malheureusement malheureusement le président Macky Sall avait perdu les élections présidentielles mais kon président Modou Diagne Fada du du du bokk parce que bëri na langue yu moo a bokk ba mënoon na dem. mais dafa gis parmi les candidats yi nekkoon candidats yi yi yi nekkoon ci Sénégal ki ci gën a nekk parce que ku ne seet na la bi mu demee ba xam ni président Macky Sall moo si gën a répond nekk répond naa exigence yi ko parti bi jox parce que un démocrate lépp ñu def si biir parti bi lañ koy. mais Seydina Ousmane est-ce ko woon. diggu ko su ko diggoon yónni na ku nekk ci moom. bi mu nekkee bi muy soog a falu yónni na ku nekk ci président muy Diagne Fada. maa ngi wax devant devant devant adduna bi. mais président gëm-gëmam moo taxoon demul fekk ji ko comme kuy ñëw rek di fekk ku bëgg dara. boobu mi ngi ci opposition metti woon mais dafa toog ni ko ñi nga àndaloon falu ngeen dem programme ga gouverner bu ñu demee ba war a uti nag sama sama gis-gis ak ñi ma àndal suñu vision nga nangu ko intégré ñu nangu ko propose Sénégal Sénégal nangul ñu ko jox la réew mi su boobaa loo ma si jox dama koy yelloo te dama koy liggéey ngir sama ngir sama bëggum réew. ginnaaw bi mu nekkee directeur beeg léegi lan la fi mais mais très bien macha allah foofu aussi ñu ciy sant le président Macky Sall parce que lu toll nii la Sonacos kun ko dénk. jox nañ la gëdd parce que ñëpp xam na ni filière arachidière moom mooy li nga xam ni mooy euh, base u Sénégal bi nga xamante nii jox nañ ko directeur général Sonacos li mu njëkk def mooy état de lieux xool boobu Sonacos ñëpp xam nañ ni mu demee bi ñu koy jox Sonacos voilà macha allah am na nu mu demee lool sax mais mu def état des lieux expérience am esprit gérial am ak euh, compétence am mu am lu mu ci jàng lu bëri. bi mu ci jógee li muy acte njëkk posé muy acte fort mooy dafa dem uti dem ci banque Arabie Saoudite yi négocier fa benn financement bu 45 milliards bi mu ànd ak euh, directeur banque bi ñëw ànd ak ministre de l'économie et des dem si président Macky Sall ñëpp gis nañu image yi keroog président ni mu ko félicité ak ni mu kontaane ci moom loolu nag mi ngi ko jàngee ci ci ci ci ci ci ci expérience am dem uti 45 milliards directeur banque bi ñëw ni 30 milliards yi day nekk en décaissement direct ñu war nag léegi euh, réussir loo xam ne ci Sénégal pour une première fois affaire u bon impayé jeex na sa am na déjà bien avant ñuy tijji campagne bien avant ñuy fixer prix euh, kilogramme de l'arachide sa am na 30 milliards yu mu teg à côté ba producteur baykat bu ñëw rek ñu jox la sa xaalis booy sa booy peese sa gerte sa xaalis di tege ndax ñëpp xam na ni Sénégal ay bon MP ak ay coow yooyu yàgg na fay am loolu la njëkk a lijjanti donc problème mu disponibilité liquidité bu mu war fay béykat moom réglé na ko 30 milliards décaissement direct. sur bon MP bi suñu gestion bon MP lu ñu loo xam dañ ko hérité woon Sonacos dañ ko mu yore ko ak léegi depuis le 3 mai 2019 ñu installé ko bi mu ñëwee moom laa lay wax léegi. kon mën nañu ko xaaree ne chaque année du am. loolu tant que ñu ngi yore Sonacos loolu moom seen une histoire ancienne lu ñu lu lu ñu. waa léegi xaalis bi ñuy fayee loolu mënuñ koo xam tamit. moom laa ne la moom la dem négocier ci banque Arabie Saoudite 45 milliards la négocier 30 milliards décaissement direct yoo xam dañ ko teg sur pour baykat bu ñëw ñu mën laa fay. ça c'est le premier acte le deuxième acte c'est que mu mu mu fekk usines yi am nu mu demee mu def mu jël un milliard def ko ci ce qu'on appelle les de fin de campagne TFC nga xam ni usine bu liggéeyee ba at bi jeex am na nu muy demee mu jël 1 milliard def ko si pour ñu rénover usines yi bañ nekk au beau point pour liggéey bi ñu war a defaat mooy transformation de l'arachide en diwlin chocolat ak yi nga xam ni moom lañ xamee ko yi mu daan def donc mu jël 1 milliard def ko si loolu deuxième acte troisième acte bi mu def ce qu'on appelle les centres de réception intermédiaire mooy fexe ba producteur bi ni mu daan sonne pour jël gerteem yóbbu ko ci fi nga xam ne moom lañ koy peese or ko fay mu fexe ba jegeel leen ko ñi daan dem ba Kolda di sonn mu tegal leen benn euh, centre de réception intermédiaire boo xam ne mën nañ fi indi seen gerte peese daal di jël seen xaalis saa si Sonacos des acheminement yi ba si usine bi ak liggéey bi donc ñetti actes yooyu mooy actes am solo yoo xam ne dañoo bëri ay impact centre de réception intermédiaire li mu juraat ci ay liggéey ci doomu sénégalais dafa bëri euh, li nga xam ne mooy aussi liggéeyaat usine bi li nga xam ne moom la juraat ci rendement usines yi mooy les travaux de fin de campagne TFC loolu aussi li mu juraat ci rendement usine bi da dafa bëri jëndaat ay machine yu bees defaraat euh, Sonacos defar ko ba nga xam ni mu nekk au bon point pour produire pour produire vraiment li nga xam ne moom la ñu séntu ci moom mooy transformation gerte gi nga xam ne moom la ñu jënd ci béykat yi. d'accord daaw tamit gis nañ ne chinois yi ñëw nañ jënd gerte gi ren naka ngeen ko gisee par rapport ak jiw wi ni mu waaw loolu moom euh, problème bu mag la boo xam ni day am solo ñu di ci def taxaw seetlu ndaxte. xam nga nag chinois yi pro euh, politique état la état moo moo jëloon option bàyyi chinois yi ñoo jënd lu tax parce que amoon na estimation de un million cinq cent tonnes d'arachide yoo xam ni ñor na Sonacos cent cinquante mille ton la soxla woon yeneen huiliers yi soxla yëpp mënta mat euh, cent cinquante mille wala lu ko lu ko jege donc état xamul ne am na excédent bu bëri buy am mu ni kon naa jox chinois ñu ñëw jënd accident bu malheureusement sama gis-gisu bopp laay wax euh, schéma bu ak démarche boobu am na am na tuuti am na tuuti fay si sama sama sama gisu bopp parce que si naka parce que soo bàyyee chinois yi libéralisé leen dem leen jëndi chinois bi indi moyen état fixé kilogramme de riz à deux cent dix état di fay trois cent franc dëggal chinois yi di fay trois cent wala quatre cent ba pare di la fekk fa nga nekk di ko jënd mais même boo soxlaa wax ma 150 000 même boo soxlaa 50 000 tonnes pour nga am ko dina difficile parce que baykat bi si si boppam dina ni un gis 300 cent si sama si sama tànk di ko fa bàyyi di dem di di di jaay ji 210 koo xam ni damay transporter wala damay def leneen donc loolu nekkoon na problème bu mag d'ailleurs moo indi jafe-jafe bi nga xam ni moom la Sonacos du mu te jot si 150 000 tonnes yi mu soxla woon loolu moo ko indi donc politique gu chinois yi franchement j'avoue que euh, faay la euh, kii kii bu mag la maintenant. nous ce qu'on ce qu'on ce qu'on propose suñu xalaat mooy jël li nga xam ni mooy euh, njaayum gerte bi yëpp ñu teg ko ci loxo Sonacos nous on propose état xëy na ci euh, producteurs yi léegi xam naa ni mën nañu am plus de deux cent dix deux cent dix nañ fa jógee yàgg nañ fa bon c'est vrai que prix la boo xam ne du Sonacos a koy fixé du état koy fixé Sénat koy fixé day am ñoo xam ni kuréel la yu dajaloo waxtaan ba ni prix bii baax na mais loolu moi je propose que ñu fexe koo yéegal. dina jafe pour ñu génne ko fi. mën nañ ko génne parce que waxtaan la waxtaan la dangay ngay woo producteur bi woo état woo Sonacos woo huiliers yi woo ñi nga xam ni ñooy dox ci diggante bi ak paysans yi nga waxtaan ak ñoom proposer loo xam ni bu chinois bi bon. chinois sax dootul am accès dem ci producteur bi directement day jaar ci intermédiaire boo xam ni moo koy jaay bu buñ produire excedent boo xam ni soxla nañ ko ci li ñu war a transformer ñu mën koo jaay keneen mais quand même am intermédiaire boo xam ne mooy sonakos mooy moom mooy libérer producteur bi comme te am nañ xaalis bu nekk sur place ñu yéegal prix bi ba nga xam ne dina arranger baykat bi baykat bu ñëw ñëwati Sonacos jënd lépp léegi Sonacos nag nekk intermédiaire entre état ak chinois bi comme ça mën ko jaay prix boo xam ne aussi lépp day dellu siwaat ci réew mi donc nous ce qu'on propose euh, franchement c'est que ñu xoolaat bu buñ tëj parce que xëy na chinois am nañ place mën nañ fi jënd mais nañ yokk prix du kilogramme d'arachide à un certain montant bu boo xam dina arrangé béykat bi mais ñu jox monopole bi à la Sonaco à la Sonacos parce que mu mën nekk intermédiaire entre ak chinois yi mën nekk aussi intermédiaire entre béykat bi. ak euh, état accord am na solo ñu jàll ci leneen wax ci actualité li nga xamante ni moo lëmbee àddina bi di mbas mi ni ko état géré ban jàngat nga si am. waaw soxna Maguette foofu. am naa fa jàngat boo xam ni bon sama gis-gisu bopp la. di tout franchement que. Euh, mbas bi bi mu ñëwee bi ñu koy dégg ci àdduna bi ñu naan bon léegi àdduna bi c'est village planétaire lépp lu am États-Unis lu fa xëyee mën naa yendu fii donc njortoon nañ ni dina ñëw état effectivement foofu def na fa euh, liggéey bu am solo mooy teel a jël ay prévisions xam ne mu ngi ñëw bi ne càpp ñëw na bon tubaab bi ko njëkk am almad la souvent damay dégg ñaan ko njëkk am ko njëkk am mais Sénégal bi ko njëkk am malheureusement fii la feeñee Touba moodu moodu bi mais gestion bi pour man baax na parce que jàng nañ si expérience yi am ci yeneen réew yi ñu teel a jël les mesures qu'il mooy tëj frontière yi vraiment bàyyi téye xale yi ñu ñu ñu bañ a jàngi déclarer état d'urgence couvre-feu yooyu yëpp dina tax ñu respecter yenn mesures yoo xam ni dina tere ki kii bi law mais nan lañ ko jëlee bi ñu koy jël c'est vrai que urgence la woon dégg nañ ko déclaré wu na tiit nañ mais il fale qu'on prépare les sénégalais bala ñuy tëj. Mhm. très important. il fallait qu'on prépare les sénégalais dañoo tëb rek tëj fekk na transporteur bi dawalkatu minicar bi ndeysaan dëkk tuuba demoon na Koungheul yóbbu fa ay passager war faa jóge ñëw ci loolu la yore njabootam ñu xëy suba tëj ko ni ko doo génn Koungheul bon mu indi loo xam ni catastrophe la ci famille bi. Euh, keneen ki nga xam ne génnoon na ñëwoon na mag wala demoon na seeti mbokkam wala demoon na benn xew dëj wala ngénte ñu daal di ko fay tëj bëri na fi yoo xam ni ay catastrophe yu mag la indi ci ci sénégalais loolu d'ailleurs à la longue moo indi soulèvement bi mais si on avait préparé les sénégalais ni leen euh, d'ici 48 heures dinañ tëj ku nekk teel a dem fi nga war a basé wu ñu teel a jël mesure tëji couvre-feu bi démarré euh, état d'urgence bi démarré su boobaa au moins dina alléger lenn li. teewuñ ko jël mesure yooyu. mesures yi xam nga tax ñu teel ko jël parce que dañoo sukkandiku ci expérience ba bi am bitim réew xam ne lii mooy tax affaire bi. taxaw ba a law ñu daal di njëkkantoo ak ak loolu jël ko sans pour autant ñu def étude d'impact bi si li nga xam ni moom la nar a jural sénégalais suba parce que booy xool euh, ñi ëpp si ñu doon kaas ñu doon soulever wu transporteurs yi la chauffeurs yi apprenti et truc que fi ñu leen tëjee moo baaxul ay boromi njaboot lan ñu xëy suba yóbbu yóbbu sa oto Kolda yóbbu ay yóbbu ay passager ñun la fa doo fa jógee ñëw nga toog fa liggéeyoo amoo loo yónnee sa njaboot sa njaboot yow yaay borom kër bi yaa mën a lijjanti Touba noo def ba ba kii ko ay xale nga fi bàyyi ak jigéen boo xam ne mënta lijjanti donc ñu nekk fa di souffrir nga nekk Kolda di souffrir yow tamit à la longue da ngay génn si mbedd mi ni naa dee mais mais lii du kii c'est vrai que ça ne s'explique pas mais quand je pense que mesures yi état waroon jël foofu si tëj bi mënoon naa gën a mënoon naa gën a souple mënoon naa gën a Euh, tege si yoon boo xam ni souffrance bi tey dina dina wàññeeku. bi mu jëlee mesures yooyu sa dafay indi ay aide alimentaire yoo xam ne dana ko dimbalee askan bi mais ba jamono ji sax kenn gisul ko ñu bëri gisuñu ko. c'est ça xam nga xam nga aide alimentaire euh, ku xool xam ni am na aussi lu ci feeñ à dire que euh, ni ñu war a cartographier sénégalais yi ba xam ni lii lii moo fa yàlla lii lii moo fay ñi nga xam ni ils vivent en deçà du seuil de pauvreté ñi nga xam ne ñoo ñoo yooyu. des na pour euh, état mën a xëy suba rek ni day joxe aide alimentaire xam kan lay attaquer directement donc il fallait créer des commissions il fallait que ñu liggéey si loolu mënta gaaw comme te mënta gaaw nag euh, xëy na liggéey bi mënoon nañ ko defee noo xam ni approche boo xam ni dinañ teel a xam les couches les plus vulnérables ñu teel leen a libérer ki nga xam ne ci lii lay liggéey xëyatul une semaine dix jours a ngi nii demul fenn nga téeku rek naan ko edd baa ngi nii saako baa ngi ne dina ñëw te gisagu ko non il faut nga teel a li naan jukki les les couches les plus vulnérables là étude boobu nag ak liggéey boobu xay na desoon na tuuti ci ci ci ci liggéey bi te nekk na loo xam ni aussi moo gën a jur jafe-jafe yi yi nga xam ni moo tax euh, ñu activité ouverture des écoles heure bi mu ko ndax baax na ndax gis nañ ne nawet ñëw te bu daan taw d'habitude xale yi daawuñ ñu da daan fekk ci vacances ñu war a def examen ndax année blanche bi waruñ ko woon def que ñuy bàyyiwaat xale yi ñu jàngiwaat. waa loolu nag xam nga moi comme j'ai l'habitude de la dire rek problème bu taxawee pour man la meilleure démarche mooy convoquer toutes les parties prenantes ñëpp ñoo xam ni dañuy yëngatu ci loolu débat yu yu franc yu yu yu leer nga évaluer xam impact yi. parce que même njàng mi euh, dafa bëri ay zone yoo xam ni il faut qu'on le dise c'est des réalités du Sénégal am na ci dëkk yoo xam ni bu taw bi ne cap xale bi day dem ca tool ya ndax ca lay dimbali baayam ñoo am lu ñu dundee ca kër ga moo fa xaw a dëgër donc day dem am na ci aussi école yoo xam ni bu taw bi ne cap inondé na kenn mënu fa jàngi am na fi ñoo xam ni bu taw bi ne cap ñi ngi ci yeneen orientation muy jàngalekat yi muy muy élève bi donc yooyu da koy teg évaluer ko étudier ko xool nooy pallier yenn manquement yi. Hmm, dafa mel ne diagnostic bi moo des. diagnostic bi moo des si sama si sama gis-gis diagnostic bi ñu waroon na def ba xam ne lii moo waraloon d'ailleurs euh, premier euh, essai bi échoué. Hmm. bi njëkkee ni dañuy tijji nit ñi dem bon diagnostic woon ko ba xam nañ condition parce que ñu dajaloo bi ñu dajaloon foofu ak ñu doon demee franchement loolu pour un pays. Euh, Euh, organisé mënoon na bañ a demee noonu moo nañu xool déjà léegi centre d'appel yi booy dem uti euh, visa fenn rek gis na nañu demee par nombre ni ñu koy deferee extra extra par heure et truc war nañu mun organiser de sorte que nit ñi ñu ach ñu yóbbu leen transport leen fi ñu war a liggéey te du am dajaloo du am loo loolu nag politique gu ki nga xam ne moom lañ ko dénk la mais diagnostic bi daal pour revenir à la question de l'école c'est que diagnostic bi ñu ci war a def suñ ko defee ba mu leer je pense que mën nañ ci génn mais quand même dina jafe ndaxte man j'allais proposer man j'allais proposer euh, fi ñu toll nii ñu bàyyi école bi comme tey ñu bëri defoon nañ seen premier semestre ñu bàyyi école bi nawet bi jàll ñu teel a tijji en cours de divernage état di préparé wu ba ñu teel a tijji teel a jël mesure ak condition d'ouverture yu leer yëpp su boobaa dañuy def examen par exemple suñu teeloon tijji suñu teeloon en septembre octobre novembre ñu def examen par exemple wala ñu tijji octobre novembre décembre ñu def examen pour année deux mille deux mille vingt bi après on ouvre l' année scolaire deux mille vingt et un peut être en janvier pour pousse ko mu dem ba juin juillet par exemple mënoon nañ organiser wu de sorte que nawet bi dinañ ko bàyyi parce que bett nañu mu jàll ñu organiser wu ba année bi bañ a bañ a invalide ñu organiser ay ay ay examen en début euh, bon en fin d'hivernage donc début d'ouverture yi ni mu daan demee donc teel ubbi teel def 3 mois def examen ubbi année académique bi xaw ko pousse tuuti vraiment pour mën a pour pour mën a parce que je pense que loolu euh, enseignants yi dinañ ci d'accord yenn feet yi daan am aussi ñu wàññi ko fexe ba vraiment fexe ba vraiment organiser année 2021 ba mën ko rattraper ba mën a rattraper aussi yenn manquements yi si année d'accord am na solo mais Seydina Ousmane liñ naan di duf ci nag bi xaju ci cin bi bu nekk ne waxtu bi xoj nañu duñ def waaw c'est vrai que ñi ngi ñi ngi sant bu baax a baax euh, waa Soxna Maguette ak euh, seen chaîne bu am solo bi nga xam ni dañ koy suivre un peu partout dans le monde ñuy wax ni kontaan nañ lool ci invitation bi di ñaan encore une fois état du Sénégal euh, campagne arachidière baa ngi ñëw am na yenn jafe-jafe yu am actuellement ci tabaski bii di waaj a ñëw ñu ngi ñaan ñu gën a bàyyi xel sénégalais yi euh, li nga xam ne mooy ndimbal dañ génne woon ko jagleel ko aide tudd ko aide alimentaire jagleel ko sénégalais askan yi fi mu toll nii bu ñu relâché nañ ko gën a yokk nañ gën a jàppale nit ñi nga xam ni tabaskee ngi ñëw te préparé wuñ ko nañ gën a jàppale ñi nga xam ne dañoo xaw a néew doole si ay format yoo xam ni macha allah euh, format bi ma mujjee xalaat la dernière fois mooy fexe ba utiliser lu mel ni Sonatel fexe ba utiliser ñi nga xam ni parce que léegi ñu si bëri seen numéro identifié nañ leen ñi nga xam ne ay ay ay ay majeur lañ def ay tri de sélection xam ni day nekk majeur adresse nga xam ni euh, xam nga ko bu baax nga trier leen ñi nga xam ni soxla nañ ay ndimbal ñëpp euh, à peu près di nga ko am nga dugal ku nekk ci Orange Money benn euh, xewal boo xam ni dina ci mën a lijjanti ko pour taw si loolu ndimbal la ndimbal la boo xam ni damay invité état mu bàyyi ko xel pour mën koo jàppalee ñi nga xam ne fi mu nii ñu ngi ñu ngi jafe-jafe leneen li mooy di ñaanal suñu suñu suñu président de parti président mu Diagne Fada euh, li nga xam ni mooy vision ak gis-gisam yàlla dimbali ko bam mu ba mu teg ci loxoom di sant suñu militants yi nga xam militants yi nga xam ni ñoo nekk Touba te gëm euh, la vision du président Modou Diagne Fada tey liggéey ci parti LDR Yeesal di leen nuyu baax di leen gën a ñaax di leen ñaanal aussi ba li nga xam ni mooy seen pas-pas gën a yokk li nga xam ne aussi seen yéene ci réew mi yàlla dogal leen yàlla dogal ban ban mën koo ban mën koo jot si jàmm. d'accord soxna Maguette ah, ñu neexalee leen Sonacos ngir ñu topp si ginnaaw état te da koy bañ waaye looloo am <laughs> <laughs> ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax naa Seydina Ousmane di kontaan bu baax ci disponibilité bi nga xamante ne nii amee na ko macha allah dig daje lañ leen di jox rek ba beneen numéro seen entretien ak beneen invité.